di baalu àq ci koor gi di baal àq ñëpp di ñaan yàlla sunu àndandoo bi yàlla na gën a jëm kanam. fédération bi nag di mbootaay boo xam ne dafa bare ay cellules yu ci bokk ndax nun waa route de Dakar ñoo ngi fi waa Mbour 3 ñoo ngi fi waa route de Dakar 2 extension ñoo ngi fi waa Mbour 4 a ngi fi waa Sofraco waa Grand Standing donc nun jigéen ñooñu ñëpp ñoo. booloo nekk benn def suñu fédération man ma jiitee fédération bi di présidente fédération bi sunu bureau fédération bi jigéen ñi bureau bi ñëpp a ngi toog sunu vice présidente maam Yacine Soumaré mi ngi nii toog sunu secrétaire général euh, mi ngi toog adjoint tam mi ngi fi. sunu ay Aïssatou Sow madame ay sotu Diallo mi ngi fi euh, adjointam Mariama Gassama mi ngi fi madame Mané Farsar mi yore social bi mi ngi fi sunu rakk Kumba Diop mi présidente comité de gestion wu école bi fii mi ngi fi présidente euh, association cellulaire yi kenn ku si nekk mi ngi fii ak sa euh, repré ñu si ak andal mu àndal parce que ku nek xam ne ni tay koor gi la koor gi fay am ay euh, ay conférence yu ñuy def donc dañu naan ñi nañu dem ci conférence bi ñi nañ dem ci conférence bi mais sunu nit bare na macha mbooroo mi bare na conférence yi nga xam ne dañu tasanteeg tey nga xam ne deux deux fois euh, chaque deux mois li ñuy def réunion fii donc mënuñu renvoyer réunion bi mënuñu bañ dem ci fédération bi ñu am ay membres yoo xam ne représenté ji nañu ci sunu nawle yooyu waaye li mën a wóor mooy man présidentu fédération bi maa ngi fi ak ñenn ay satu Diallo suis sunu trésorier euh, fédération bi di aussi de euh, association Sopu Nabi Fatou Sopp Fatou Bintou Rasoul. Mère Diagne Fat Diagne présidente Sopu Nabi Qui représente mi ngi fi ndax préparer euh, conférence ñu madame mbay Rose Coly présidente association la bu Mbour 3 Rama Won madame Aaj présidente Suqali sunu gox route de Dakar de extension mi ngi fi ak ñi mu àndal Faddaam madame Thiam Faddaam Mbow président sopp na bi bu Mbour mi ngi fi Nafi Diop Madame Ba, présidente association des femmes unies grand standing mi MashaAllah. donc sunu réunion bi dañu def quelques membres pour nous def sunu luñu def par ñëpp comme ni waxé ndax euh, ko yoy xew sunu nawle yi xewlé ñu wër leen quelques membres ku si nekk nga wax ci li nga ci mais li ñuy wax mooy sunu fédération bi daal a ngi nii dañu dëkk ci koñ yoo xam ne koñ bu bees la ñuy woote ndimmal di wone pour ñu dimbali sunu mais jigéen ñu takkuñoo fi nekk ñu ànd rek ngir yàlla di former di def li ñuy def bu weer dee comme ni deux mois yu nekk ñu dajaloo liñ ci am ñu génnee loo xam ne pour social la ñu génnee li nga xam ne dañ koy cotiser di ko leblente ci sunu biir di dem ak di ñëw ku bu deux beneen deux mois ñu ñëw ñu versé waat ñu dajoo nii ñu waxtaan ñu seet lu ñuy mais nag macha allah amagul un an ndax août bee passé 2017 rek lañ ko commencé te am na nag yuñ fi jot a def ndax euh, am nañu quartier fii ci quartier bi école comme bi ma leen doon wax léegi ne madame Koumba Diop mooy présidente comité de gestion bi dinaa ko jox parole bi ñu demee sunu góor ñi nekk ci bi ñu fondee sunu fédération bi dinaa di ñëw fekk si leen ci ba ñu def macha allah ba defar classe ba xale yi commencé jàng ñu nekk koñ bu bees boo xam ne école baa ngi fi ñu bëgg autorité yi ñu xam ci lu ñu nekk ñu ñëw jàppale nu ndax école bi pareeguñu ko doole jigéen la te doole jën mooy ndox ñu am fi sunu terrain boo xam ne pour marché la kenn defalagun ci dara. ñu bëggoon bu ñooñu aussi ñi ko yore lu ñu mën dimbale ñu ñëw dimbalantu ko ak leneen ak leneen parce que kat jàppale nu jot na jigéen comme dañu wax ni dañu soxla développement ci jigéen ñi ñoo ngi ci te buñ nu gisee ku nu mën a jàppale yëg nañu nag financement yi xew ba ñu bindoon ci bin ci bindee mi ngi nii lettre bi lañu jox pour accorder nu 700000 5 millions nag laa demandé woon bi ma ñëwee gis lii ñu jox nu 700000 ci ci 130 personnes laa dugaloon ma defee ne 700000 bu nu ko jotee si 130 personnes man séddale bi sax daf may xaw a jaaxal kon ma defee ni ñuy woote waat daal di laajte waat ndimbal ñu gën nu dimbali parce que ñoo ngi takku fii ànd di def di booloo di cotiser di leblante tey bu nu jotoon cinq millions yooyu ma demandé woon defe naa liggéey bi dina gën a gaaw daanu gën a soqalu ko ndaxam yëg nañu DER bi ñoo ngi ciy préparé waaye dañu bañ li ñu daloon fii ci ministère de la femme dal nu ñu dugal ñu ne joxaat ay sept cent mille ndax fédération bi macha allah dafa bare chaque réunion ñu am ñuy dugg si tey rek benn fédération benn cellule ñëw na pour bokk donc 130 yi ma dugaloon sax daf koy ëpp wax dëgg yàlla 130 personnes bu ñu la joxee 700000 francs man mi ko jiite man du ma xam fu ma ciy jaar ak fu ma ciy dimbale donc ñuy woo loolu président di ko kay yëgal mu jàppale nu mu ñu wan nu yoon wi nuy jaar pour mën nu financer pour ñu liggéey ndax nun développement rek la ñu bëgg ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi yore ca mën a ñëw ak ndimbal ñoo ngi woo ñëpp. ñoo ngi tàllal sunu loxo ñëpp nun daal ay jigéen loo xam ne jàppanu ci lu dul sunu lu tuuti lii ñu amee ku nu soqale nag ñu dem moo tax ñu jóg wasalaam man li ma ci doon wax di gërëm ñëpp nag di gërëm waa fédération bi parce que boo wootee ñu wuyu te dafa mel ne keroog bi ñu ko créé ñoom ñoo ma ko gënoon yàkkamti ñoom ñoo ko gën a soxla ñoom ñoo gën a bëgg mu dox ndax man kott bu ma taxawoon ñu ñu ñu du dem man mi ñu wóolu ba def ma présidente du du du du lenn tax ñu def ma ka ludul bëgg ma maa ngi leen ci sant bu baax ndax ñi ma gën a jàng ñoo ngi fi ñi ma ëpp xam-xam ñoo ngi fi ñu yàgg yore njiit ñoo ngi fi man masuma yore lii tey jii ñu yëkkati yan boobu yëpp teg takk ci sama bopp wóolu ma ànd ak man nag jàpp ci ndax nit dina la fal ba pare teg fee te du ci jàpp waaye macha allah ñëpp a ngi ci jàpp boo wootee ñëpp ñëw ñëpp taxawu ñëpp boo ko nekk benn ñëpp àndandoo bu ñu nekkee ci naqar ñu gisante bu ñu nekkee ci bànneex ñëpp ñëw yal na nu yàlla musal ci cat yal na nu yàlla musal ci seytaane te yal na nu yàlla jàppale kóllëre gi ñuy nekkee ci barke sëñ Babacar léegi nag maa ngi jox sama vice présidente. parce que ñu waxee objectif dañuy wax développement sukkali suñu gox. quartier bu bees la route de Dakar yeneen ni ñoo topp ñu si parce que seen ginnaaw la ñu nekkoon ay ñoom Mbour Mbour 3 Grand Standing seen ginnaaw la ñu nekkoon route de Dakar ñëw dañu bëgg suqali gox gox bi. donc dañuy def appel encore une fois lu président wax di lancer waat appel au niveau des leaders yu nekk si Thiès ñi ñëw jàppale ñu jàppale ñu suqali sañu gox waaw jógee les ministres de Thiès les députés et tout ça ñuy dëkk si koñ bi ñu ñuy jàppale ñu sukkali dox bi parce que doo gox bi si sukkaliku Sénégal moo sukkaliku surtout ñun jigéen ñi di liggéey ñoo yore dëkk bi léegi ni ñu ñëw jàppale ñu liggéey sukkali gox bi waaw am nañ fi ay projet yu bëree ah école baa ngi fi commencé nañu ñun jigéen ñi xeex nañ si ba benn classe dem na ñu ngi xaar ñu eggalil ñu ko parce que sañu doom yi bëgg nañu ñu jàng si pour tout proche poste de santé mi ngi fi am nañ benn poste de santé mi ngi Mbour mais population bi léegi mi ngi yokk ba route de Dakar ba extension ñu ngi yokku poste bi léegi sore na il faut ñu am poste de santé fii am nañu ay site am nañu deux sit yi ñu proposé dans le quartier ñu ngi woote leader yi ñu ñoo jàppale ñu tabax poste de santé bi pour la population ñu ngi tabaxal fii benn ñu ngi defal benn tali fii nawet baa ngi ñëw tali bi su ñu ko eggalewul dañuy sonn dañuy am problème accessibilité par rapport à la santé par rapport à l'école tout ça déjà que avec mouvement grève école yi dina teel a tëj ah su nawet bi fekkee fii xale yi day métti pour ñu génn di dem di jàngi ba fee ñu jàppale ñu si eggali ñu sañu chantier tali bii waaw vraiment ñu jàppale femmes yi développement du quartier parce que ak lu ñu commencé nii vraiment ñu ngi siy sukkandiku mais daal ñu ngi ànd ñu ngi leen woo indi seen loxo mu gën a xëcc ñëw fekk si ñu quartier bi mun a jëm kanam projet yi ñu fi commencé ñu mën ko eggali ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi en cours aussi. ñoo ngi sant ñu wii si bu baax di ñaan yàlla avancement ci suñu fédération bi. ndax bañ dooree ba léegi comme ni ko tàkku na waxee yàggul loolu mais ñoo ngi dem at suñu doole at suñu ñaq mais ñoo ngi woote ku ñu mën a jàppale rek ñoo ngi lay woo ndax ñu jigéen ñi li ñu soxla mooy liggéey génn suñu kër yi liggéey bu baax bañu ñu dara nag ñoo ngi ci lu ne ñoo ngi ca marché ba ñu ngi ci couture bi ñu ngi ci bureau yi ñoo ngi ci lu ne ñu dara ku ñu jàppale rek ñu jël toog rek lañuy bañ at tëdd nelaw. dina jafe ñu am luñ ci luñ ci yokkaat. parce que nous avons le tour vraiment des problèmes que nous rencontrons dans ce quartier là parce que ni avons ko waxee non la route de Dakar 2 Nyo Dajalo, and ak nous avons yu dans avons quartier yi Grand Standing euh, euh Sofraco avons euh, Mbour 4 nous Mbour 3 nous avons rek que tax bëgg a liggéey di ay des nag mais ay jigéen yu am jom yu am fulla yu xam lan le sens du développement parce que bi avons baax na waaye di def noonu dëkk bi jëmee ci kanam moo gën te yaakaar naa jigéen ñi loolu rek lañ fi lañ fi nekkee donc di profiter vraiment di féliciter bu baax ku na wàdd di féliciter toutes les présidentes des associations di féliciter aussi jigéen ñi ñuy wuy ñëpp chaque fois bu ñu wootee parce que woote bi ni ñu ko waxee woon rek bi sabililaahi te li liñ ciy def am na solo parce que booloo suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm loola fi di wax suñuy dem suñuy daqaar boole ba yàlla dimbali ñu ñu am dara continuer nag di ñaan parce que da ngay commencer d'abord ci liggéey ba paré door ñaan walu di ñaan aussi vraiment autorité yi nga xamanteni ni ñun ño leen fi tek gannaaw yalla ñun ño yoron suñu carte ñoy voter bu maire amé euh, c'est parce que population amna su président amé population amna su député amé c'est parce que population amna bu ay ministre amé ci gox c'est parce que population yi lañ fa nekkal kon population yoy surtout ay jigen buñ dajalo di leen wo pour ñu ñew jàppale leen yaakaar naa ni loolu lu leen war a yomb lay doon parce que dafa bokk ci ñoom ci seeni prérogative la bokk donc ñu leen di ñaan ñoom tamit loolu leen yàlla dékk Sénégal dénk leen ko ñu ñëw aussi jàppale ko association yi ak fédération yi dimbali sunu fédération bi ba li ñu bëgg a def ñu mën koo jëme ci kanam parce que li ñuy def lenn la rek mooy dajale bu nu dajalee en toute transparence en toute équité ñu toog dajaloo ni nii la ñuy séddalee nii la ñuy jàppale kenn ku ne buñ la jàppalee li ñu la mën a jàppalee parce que ku na xëy na dina ci ñëw en détail 20 mille francs la ñuy dagg di ko jox kenn ku ne te ñaan nañu yàlla muy ñuy dem bay jox cent mille wala cinquante mille jigéen ñi pour gën leen appuyer ñu gën a mën a liggéey kon loolu ñoom rek ñoo ñu mën a dimbali ba xaalis bi mën a toll foofu ba ñu mën cee atteindre suñuy objectif. kon nag vraiment ñuy euh, gërëm ñëpp di sant ñëpp léegi pour affaire école bi ci la ma laajoon léegi école bi yàlla dimbali nañu ba comme ni ñu defee nii rek. noonu lañ ko defee ba école bi tey jii taxaw parce que en réalité ñëpp xam nañ ne école gouvernement moo koy tabax mais ñun jigéen ñi ak góor euh, route de Dakar 2 tooguñu di xaar ni sunu doom yi war dugg école danoo dajale li ñu am lépp ñu boole ko commencé tabax yàlla dimbali nañu ba dans un premier temps defal nañu benn classe. ba tamit ba classe bi ñu ay association ak ay fondation bu mel fondation euh, ñëw nañu jàppale ñu lool lool lool yëkkati ay xaalis yu bëri mën naa ne ay millions buñ ko évaluer toll na si ay millions defal ñu ko ba tey jii ñu démarrer avec une première classe loolu tamit ku na am na lu mu ci junjoon léegi du ñun rek ñoo ko liggéey. ci début bi suñu càmmeñ ñi ñoo ko yoroon parce que boobu euh, kii amaguloon comité de gestion amagul woon te ñëpp xam na ni comité de gestion ministère de l' éducation nationale moo ko imposé pour que école yi mën a dem ci kanam ñu seet ay nit saytu leen jox leen ko ñu liggéey école bi ni ñu ko bëggee ñoo xamante ni yàlla dimbali na leen xëy na ñu bokk ci école wala ñu xariñ ci école mbaa simplement ñu bokk ci gox bi te nekk ay nitu développement ñooñu la ñuy bëgg di leen jox ñuy diriger comité de gestion yàlla dimbali ñu donc góor ñooñu ñoo tàmbali woon mais par la suite ñu def comité de gestion machallah nous voté ci biir quartier bi vote bu rafet suñu comité ñu aussi jigéen ñi takku ba gestion. Nous yalla def ñu la présidente du comité de gestion. ci ci liggéey takku ñu am ay ressources il faut qu'on les nomme fédération personne ressource essentielle la ci école bi aussi madame Mané vraiment lune def nañ ko ci école bi booleeg yenen population yi ak sunu càmmeñ yi ba ñu am une première classe li ci des nak kon ñun góorgóorlu nañ ba am loolu waaye ga lu ci des nak ludul euh, les autorités ñew nak en appoint parce que nag loolu seen la yalla dimbalé nañu aussi if amna na ñu promettre IF promettre nañu avec ses agents que nous saluons et que nous félicitons Comme les monsieur Diouf euh, di planificateur Comme les monsieur Tandine chargé des constructions scolaires dimbalé nañu ñu ji ba dig ñu ñaari classe ba yalla def na ba les DMM gas nañ ko ba paré kon nak vraiment ku la euh, ku lay yéegal ci ci ci ci yettu di gi tax ngeen ànd di daw na la leer heure bu amé façon goor di nga yéeg kon nak yalla dimbalé nañu ba lolu tollu nañ ci tamit fi mu nekk nii donc dal ñuy ñaan autorité yi monsieur le maire monsieur le maire monsieur Sow di laaj di ñaan aussi monsieur Talla

tali bi ñu commencé aussi ñu ngi ñaan nañu ko eggaleel balaa nawet bi ndax fii dafa nekk ban ñun tamit mbootaayu jigéen lañu bëgg nañu ku ñu jàppale si ay formation ay cuub defar saabu waaw ak ay couture soxla nañu ko ndax dañuy bëgg di liggéey rek jàppale suñu borom kër yi. man nag ci affaire maraîchage bi laay wax ndax fi mu ne nii maraîchage moo tax a jóg ñun ndax euh, suñu koñ bi ndox daf fi ñàkk. ndax tey projet boo xam ne ñi ngi ko def tënk ko ci lu ëpp million ñu jox ñu 700000 ku ne xam na ne mënu koo defar loolu jàppalewuñu dañoo bëgg président Macky Sall Marème fay Sall sax la ñuy wax mu ñëw dimbali ñu ndax suñu maraîchage bi lu ñu lu ñu tenir la à cœur bëgg bëgg defar bëgg defar suñu gox bi ñun ay jigéen lañ bëgg ku ñu dimbali ndax maraîchage dafa dafa di loo xam ni luy suqali gox la suñu gox bi yaatu na macha allah ndax Mbour 3 Mbour 4 Dakar de ku ne xam ne ay terrain am na fi maraîchage bu ñu ko bëggee def mille 700000 francs mille francs lu mu mën ah. ndox amuñu amuñu ndox amuñu yoon bu ñu jàllee bu tawee fi mu ne nii yoon bi ñu ñu defaral nii ban la gas nañ ko ba noppi te fi mu ne nii mënuñoo génn bu tawee fi mu ne nii ravitaillement sax pour nga dugal ko taxi yi ca taliba lañ lay bàyyi yow yaay roñ baa nga woo sa waa kër ñëw jàpp roñ di la ba ba ba muy dugg si ci biir ngay watatoog ñoom saaku ceeb yi wadd suukar si wadd war dëgg yàlla sonn nanu tali bii nag comme gas nañu ko am nañu yaakaar ci ñoom ndax église baa ngi fii tegee suñu mbokk yaa ngi nii ñoom tamit war a ñëw dimanche ci seen jàngu bi ngeen dimbali leen ñun ñu mën a fexe ñu duggee taxi yi duggi oto yi dugg ñu mën a ñëw ñoom tamit def seen prière normalement ñun daal ñu ngi ñaan Marème fay Sall yow la nuy woo nga dimbali ci suñu projet maraîchage bi ndax mu mën a dox ñu mën a suqaliku suqali suñu njaboot ndax ku dimbali jigéen yaa dimbali xale yi yaa dimbali kër gi yaa dimbali ñëpp Marème fay Sall ngir yàlla ñu ngi lay woo ci suñu gox bii di Mbour 3 Mbour 4 Route de Dakar 2 suñu fédération bi daal yow lañ ci yaakaar. fi mu ne nii daal maraîchage bi projet baa ngi nii 700000 lañ ñu jox 700000 francs génneel suñu chèque bi waaye ñu gis ko waaye ba nga xam ne Marème fay Sall gis ko génneel chèque bi Marème Fass Marème Faye Sall gis ko bu baax yow la ñuy woo yaay yaay yi ñëpp kuy laajte gox boo xam ne dafa am problème mu ndox problème mu ndox la la ñu am di laajte cinq millions ñu jox ñu 700000 francs 700000 francs Marème Faye Sall lu mu mën ñu ngi lay woo yow daal lañ ci yaakaar fi ne nii ñu ngi ñu ngi lay xaar daal yow daal la ñu yaakaar ñu ngi lay xaar bu baax a baax a baax. fédération bi dafa bëri ay koñ yu mu lëkkale te koñ bu nekk am nga sa propre doléance parce que ñun waa Grand Standing ñëpp xam nañu boulevard bi fa la nekk jaan yi xawoon nañ ñoo rey ban bi kenn waxal oto du fa dugg bu nawetee xam nga ndox mi ñàkk na fa insécurité bi surtout te quartier bu day ni Grand Standing évolu avancé ba Mbour 4 ñëw ci gannaaw Mbour 3 Mbour yëpp te amuñu poste de police tamit. dafa jaaduwul insécurité bi jakkataa yi ku dugg ñu agressé temps yi ñu gannaaw rek am na koo xam ne ko agressé foofu xam nga te ku yuuxu kenn du génn parce que ñëpp ragal ndax insécurité bi boulevard bi yaatu na te amul dara amul dara pour nga traversé ko problème la surtout nag bu taw bi ñëwee xam nga te jigéen ñi ñoo fi nekk di soqali koñ yi jigéen ñi ñooy liggéey jigéen ñi ñooy nekk ci association yeeg mouvement bi te ku soxla nag ku soxla ba soxla jigéen ñi ngay woo pour ñu mobiliser la donc nag jigéen nag dafa nangatu la nekk escalier wu kenn parce que jigéen ñi am na lu leen doy toppatoo seen njaboot yi moo leen doy toppatoo lan mooy développé seen kër yeeg seen doom yi nga xam ne ñu ngi ci utum liggéey te amuñu ko moo leen doy ku ñu soxla nag da ngay xam ne lii la ñu bëgg nga nekk ca ñu nekk ca ak yow mais tëf ñu escalier mu dañ koo nangootul fenn ay femmes de développement lañu liggéey ñu ngi ci lépp ñu ngi ci teinture yi ñi ngi ci maraîchage yi ñu ngi ci euh, saponification bi ñu ngi ci lépp loo xam ne dafay jëmale Sénégal kanam rek ñoo ngi ci kon nag dootuñu nangooti kenn duñu def ñu nekk en rade diñu diñu diñu ñu delloo gannaaw nangootuñu ko li ñu bëgg daal mooy képp koo xam ne kii soxla nga waa Grand Standing nga dimbale ni seen développement mu nekk ku soxla waa Mbour 3 nga double dimbale leen ci developpement parce que benn point la mooy na quartier yi développé wu ku nekk mën ca la ngay yëngu nga mën caa séentu loo xam ne li dina la jariñ ëllëg kon nag ñu ngi remercier suñu présidente bi ñun gan lañu dañuy soog a ñëw parce que dégg nañu mouvement bi ni muy doxee cent 130 personne dinaa wax jooy ko lu ñëpp di jooy 130 personnes et quelques nga jox leen 750 mille ci ay 700 mille ci ñetti ñeenti quartier ci ñeenti gox loolu naka lañ koy def naka lañ koy def waaw kon naka naka lañ koy def kon nag maraîchage ñeenti quartier nga bëgg koo jox lii moom vraiment ñi ko yoree war nañu xolaat sa baax seen bopp nga xam ne ko bëgg a jàppale ki lay ki nga xam ne moo lay jox dangay xool na nga koy séddalee. en fonction de ña ko yeyoo nga jox leen ko. ci sunu gannaaw fii route de Dakar 2 extension ñoo ngi noonu bi fa nekkee ba tey ñu war a mën a régulariser problème mu kër yi parce que problème mu këyitu kër yi ñoo ngi fi ni ñaa ngi fi toog nañ ko ki dem Dembo Ndiaye amagunu këyit ñoo ñu extension te dañ ko war a am ndox ma war faa xëccu te fu ñu ba demee SDE ñu laaj leen këyitu kër loolu yëpp président man nga ka yaay sunu njiit. yow madame fay ñoo ngi lay yónni ci président nga jàpp ci en tant que jigéen mu dimbale ni ci sunu dëkkandoo yooyu ñu waxati barki Demba Ndiaye am si ñoo xam ne dem na nu jaayi jën. ñii dem di fóoti di loolu jënd seen terrain ñu toj ka dëgg la sax loolu kenn waxatu ko waaye comme que président mi ngi def ci affaire euh, kii bi nañ ñu dimbali man demoon naa ba gis gouverneur ni ko yaa vingt personnes ci sunu membre ci sunu kii ci la ñu bokk ñoo ngi élargi ñoo ngi waaj a maye. nañ na boole ci kër yi ñuy maye ñu joxe suñu dëkkandoo yi nga xam ni ñoo ngi fi amuñu teere yu ñu dëkk ñu dëkk ca mooy dëgg problème bi li wokk benn jigéen moo wokk fukki jigéen nun ñëpp am na problème mu ndox nun ñëpp am na nañu ba ku nekk xam na ni léegi kër yi jigéen yi ñoo fa nekk nañ waxante dëgg ndax embauché wuñu góor ñi jigéen ñi ñooy dem ñooy dem nekk fóotkat ñoom ñooy dem jaayi jën ñii jaayi lu jëm yi seen buntu kër ñii di liggéey ci bureau yi ñii di def lu nekk pour ñu taxawal kër yi président ngir yàlla dimbali no madame fay Sall nun suñu zone bi sonn nanu zone bu bees la lu nekk ngi fi nag waaye coono bu nekk ngi fi nañ ñu dimbali jigéen ñi kii yi ñuy mayee terrain yi ñuy maye ñu may ci sunu membre yi ñu am seen kër ñu moom suñu bopp parce que dem xoolal dem euh, am jaayi sa jën wala nga dem fóoti ba am sa benn teene nga jënd ko trois cent mille francs xëy na sax dëgg la ñi leen nax ñoo leen nax ñu daaneel foofu loolu yëpp waxatuñu ko ñoo tooñ xam nga lu ñu bëgg ku ñu may teere ba ñoo ñu am teere ñu dëkk ak jàmm ak salaam loolu rek lañuy ñuy ñaan dañuy ñaan nag ndimbal ngir yàlla ndox kër yi nañu bëgg politique nu dañuy wax liy dëgg loolu moo fi nekk parce que foog ñu wax leen problème yi nekk ci koñ bi ñu xam ka parce que bu ñu waxul ak yéen du ngeen xam li nekk ci problème bi man mi yéegade jigéen ñi fii de maa ngi woote sama téléphone nag ku ma soxla 77

waaye nan la dëkkee étage man na doon liggéey ci étage bi retraité ku nekk xam ne ne retraite la ciy nit di fayu mënul yore kenn nit ñi bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki nit ñi sonn nañu nañu génn dugg waxanteeg nit ñi ñi ñu war a waxanteel ñu renseigner leen li xew ci dëkk bi xam ngeen ni set man de sept cent mille yi ñu ma jox man wàdd jaaxal na ma te xaw ma nan laa koy def te kuñ ci dimbale aussi ñu jël te nag am na foo xam ne sax nit ku bu fa tolloo xëy na dëgg la nag bëgg nañu projet yi ñuy leble waaye bëgg nañ ci yi ñuy maye waaw parce que am na ñoo xam ne bu ñu lebee du ñu dem te bu boobaa bu ñu leen mayee daañu am na ñu suqali ko bëgg nañu ko nu lebal bëgg nañu ko nu may bëgg nañu ko nu dimbali poste euh, nun suñu fii bare na ay terrain am na nañu fu ñu def poste de santé am na nu fu ñu def police am na nañu fu ñu def marché am na nañu fu ñu def yëpp nan nu dimbali ngir yàlla ñëw jàppale nañu dem. même buñ nu mayulee ñu lebal nu ca wax nu yoon yi ñuy jaar ba ñu ñu jaar fa ba mën a kii ñu envoyé na ku nu encadré ñu def ba sunu affaire baax wasalaam loolu daal laa amoon tey lu may wax ci mbooloo mi maa ngi nii wasalaam.